moyni ni dañoo toog ci jamono yi passé euh, magistrat yi ci seen coopérative d'habitat ne leen nañu jóge ci suuf si parce que le président Macky Sall moo leen ko jox ah jóge ci suuf si bi ñu doon dundee di ci dundal seen njaboot ñoom it ñu jaaxle bi ñu jaaxlee jóg magistrat yi daal di def épreuve de force daal di jël seen suuf si naxasal ko daaneel garab yi fi nekkoon mooy fi ngeen di gis na nele ñu dindi lépp biñ ko dindee nag joxuñu leen ay ndàmpaay te àdduna wërngël képp ak Sénégal loi bi fi ne mooy que ni yu mel nii boo koy def dafa war a ànd ak étude d'impact environnemental et sociale magistra yi nga xamante ni ci ñoom la ñu yaakaar justice ñoom lañu yaakaar ñu préserver ñu la droit dañoo jël droit boobu piétiner ko ndaxte étude boobu amul kon fi ñu leen doon xaar ñun fekk ñu leen fa te ñii laajuñu lu dul ay ndàmpaay kon nag ñoom ñi leen di woo pour ñu dégg ñii seen yuuxu jox leen li nga xamante ni ñoom la ñu warloo ak ñoom keneen ki ñuy waxal nag mooy le président Macky Sall. qui mi signé décret déclassification filao yi nga xamante ni nañ fi ay at te alal moo ko fi def ay organisation internationale ak yeneen i réew pour protéger tout le littoral mooy région côtière bi avancée de la mer de fatiguer le président Macky Sall moom moo conseil des ministres décentralisé le littoral bi un dina ci jóg ba préserver mais moom moo njëkk a jóg di naxasal littoral bi waxu démb warloo naag jëfu tey